nuyoo nuyu axlu làmb nuyu Sénégal nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñuy faral di seetaan fii ci RDV képp ku ci nekk rek ñu fekk la fa nga nekk jàpp la loxo di yaakaar rek Père Ousmane dem ci direct bi ñu tuddee ko ki nga xamante ne mooy suñu papa wala suñu maam Abdoulaye Wade di onzième édition. wallaay ndeysaan kon nga xam ni lii nekkul hasard. ndax xam nga RDV moom dañoo yaatal. dëgg lépp dañ koo yaatal. boo at bi baa ngi at acca arbitre bi sifflé na ndeysaan diggante Tooro ak Bébé Reug Reug Bébé moo féetee ndeyjoor Père Ousmane eh, moo féetee càmmoñ moo jiital tànku càmmoñ féetee càmmoñ waaw waaw euh, euh, euh, <laughs> Tooro nag féete féete féete moo féete càmmoñ jiital tànku càmmoñ waaw Bébé Reug Reug na wàcce garde bi lu waral loolu waaw wàcce na garde bi dafa bëgg mu ñëw bërekat la wallaay ndeysaan bërekat la boo gisee mu indi cokkaas ah, cokkaas na ndeysaan cokkaas na ñoom ñaar ña ngay léew Père Ousmane man bëgg naa ku na loxo yi di laale man bëgg naa loxo yi laale waaye loxo yi sore wóorul baaxul te day yàggal combat Père ma wax la ma sàcc wax la waxal bébé rëg-rëg mii hmm. Père borom Bambey séeréer la door feyu su jàppee day bëre hmm. te bu loxo yi jàppul tànk yi day dem mbotkat la. moo tax mu jox ko wet. waaw mbotkat lañu ndurool waaw waaw waaw mbërum wet la. écurie Grand Dakar la nekk. Grand Dakar ak Grand Yoff ñoo jàkkaarloo. ñoom ñaar ña ngay léew Père Ousmane. ñaari écurie yu doo yu am doole. ci département de Dakar. ndeysaan ñuy félicité Ngone Ngone Mbeng ci premier adjoint au e de la ville de Dakar kooku sama sœur la. Ngoné Mbengue ñu ngi lay félicité di félicité Moustapha bu seeni ñu koy félicité moom it ndeysaan euh, attention dem na. dem na ay ay jege woon saako yi gis nga bu nekkoon ci biir gi diggu géew bi nga xam ndeysaan ndeysaan seen na Ahmed Sène kooku mooy géwalu juddu. avertissement Toro. géwalu juddu Serigne Modou Niang noonu. ndeysaan macha allah xam naa dina toog ci plateau bi ndax ñoo bokk Kébémer. tund Kébémer di géwalu juddoom ñëw na. ñu ngi lay nuyu. ñu koy nuyu muy Ahmed seen a ngay léew personnel. Ah, jël ko. bébé rek yooru na. yooru na jël ko. nañu ko. attention a da koy tànn. ah déedéet xewul bëreel door na ko ku. bëreel attention bébé rek rek bëreel bul bul hasarder sa combat bul bul bul yàq sa combat coup de sifflet moo leen di boole coup de sifflet moo leen di tàqale deneen bàyyi loolu seen xel yéen mbër yi ñoom ñaar ña ngay léew Père Ousmane laa ilaaha illallaah tët tët tët tët tët attention attention Toro li ngay xeexee baaxul to attention bébé rëg rëg bébé rëg rëg mais mais euh, bébé rëg rëg day wàcce garde bi lool waa Père Ousmane du xeexkat boo ko gisee ni muy def waaw man ni muy wàcce garde bi sama yaram waa ngi daw Pape Diagne Seras mën na la cee wax dara sama yaram waa ngi daw Pape Diagne Seras xam nga ni muy wàccee garde bi moo lay wan ni ndeysaan xeex bi ñorul mbër dafa war a di am garde di jàng xeex parce que xeex dafa bokk ci bëre te bis boo rek adversaire boo dafa mën a xeex rek day bàyyi bëre bi ñëw xeex sama yaram waa ngi rag rag ndeysaan may nuyu ki Kiné Diaw la promotrice Fatou Kiné Diaw nuyu naa la depuis Diamaguène Sicap Mbao en direct sur RDV di nuyu Assou Diagne di nuyu ki nga xam ne mooy maman di nuyu Moustapha attention gis nga ko Pape Diagne Seras euh, bëre bu xaw a nii moom la Tigre Junior bëree démb. bëre bu mel nii la moo tax mu ba jël ko jël na ko waaw Bébé Reug Reug na jéem a bëre na jéem a bëre na jéem a bëre loolu laa gis ndeysaan attention gis nga ko Bébé Reug Reug Pape Diagne sama yaram a ngi daw waaw bëre nañ bëre bu rëy bëre bu neex mi ngi koy cokkaas di arrière loolu mooy cokkaas li mu bëgg song ko la bëgg gis nga. ah sànni na ko solo. voilà song ko la bëgg song na ko. da ay da daay la laa ci génn. dëpp na ko dëpp na ko dëpp na ko. dëpp na julli na julli na. julli na bébé rek rek dëpp na tooro. dëpp na tooro julli na. waxoon na ko ko Père na. wax la. laa julli loo na ko. julli loo na ko julli loo na ko. julli loo na ko am caan seeraas mbëru tànk. boo koy songu doo ko dajale. doo ko dajale. ndax bu rasoo rek. da lay suruxal. da koy suruxal. da koy suruxal da koy suruxal. da ko suruxal mu julli. aca Père Ousmane ñu ñëw ci bébé ñu ñëw ci Siteu. waaw waaw wa waxal ak waxal ak Siteu. loxo Siteu day miir ñëwal ni ñëwal nii. su ma amee combat